برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أه mbokki julli di mbokki téléspectateur LCS la chaîne sénégalaise euh, ñu ngi leen di nuyuwaat delluwaat ak yéen ci seen émission bi di yeete fa tabaarakallaahu e, dellusiwaat ci sunu xuruful hijaay yi ñu doon jàng di sant mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi ànd ak ñun di ko rafetlu fa tabaarakallaahu xam naa ku mel ni soxna Kànji Sow te ñu amoon retard ci commencement lesson bi comme ñoo leen waxoon ne aljuma la ñu koy door far yàlla dogal ñu dooroon ko jeudi bi yàlla def itam am ñu leçon e, jeudi bi raw ñu mel ni soxna Kañ ji tabaarakallaahu Sow ak euh, magam ñu ñaan ñu ñu commencé waat ci euh, xëcc bi ci lettre alif bi dellusiwaat ci fi nga xamante ne nii foofu lañ yemoon ñu ngi ànd ak sunu techniciens yi Amadou Kébé tabarakallah Alassane ci régi bi su ko defee rek ñu ànd ak ñoom ñu xool écriture yi ni mu gën a leere fa tabarakallahu pour ñu woon ko ñi toog te seen kay ak seen big pour bëgg a recopier fa tabarakallahu loolu rek la ñuy wax toujours ñun sunu sunu feeñaay ñun amul njëriñ waaye na lettres yëpp feeñ leer mu mel ni nu mu gën a yéege tuuti pour euh, masque damm bi ci kaw gën a feeñ tabaarakallaahu euh, loolu ñu koy ñaan techniciens yi rek pour satisfaire ñi nga xamante ne ni ñu ngi toog fa tabaarakallah yor seen kay ak seen big di recopier mi ngoog fa tabaarakallahu mel na nii am ngeen ko lépp macha allah euh, bu ko defee kii mooy lettre alif bi nga xam ne mas nañ ko fatha muy hamza bi mooy a alif bii mu dendal daf koo xëcc muy a dégg nga léegi lettre alif bi ñu mas ko kasra yaa bii mu dendal daf koo xëcc mooy ii euh, lettre alif bi ñu masko ko damma muy maska lonk bi waaw bi mu dendal daf koo xëcc muy uu dégg nga a i u waaw a i u dégg de lettre baa bi gis nga ko moo nekk nii buñ ko maasee ah, fatxa ba la alif bi moo ko xëcc muy baa ba tey lettre baa bi moo nekk nii ñu maas ko kasra ci suuf yaa bii mu dendal daf koo xëcc muy bii lettre ba bi ba tey mu ñëw ñu mas ko damma muy lonk waaw bii ci kanamam moo ko xëcc dégg muy buu donc ba bi bou ba bi bou a i ou ba bi bou voilà lettre ta mon moo nekk fatha ba muita numasko kasra yaa bi moo ko xëcc muy tii wa tiini wa wa tiini gis nga tuubaa ngoog ñu mas ko damma dégg nga de waaw bi moo ko xëcc muy tuu nga wax taa tii tuu taa tii tuu kii mooy saa bi saa bi nga xam ne boo koy prononcé da ngay teg sa bëñ ci sa kaw làmmiñ muy lettre saa donc buñ commencé fatxa ba pare xëcc ko dégg nga ñetti tomb yi ci kaw mu nekk saa saa ñu mas ko kasra yaa bi moo ko xëcc muy sii ñu mas ko lonk bamma damma waaw bi moo ko xëcc muy suu saa sii suu saa sii suu voilà lettre jiim mi ngoog ñu mas ko fatxa alif bi moo ko xëcc muy jaa ba tey lettre jiim ñu mas ko kasra yaa bi mu taqalool moo ko xëcc mu nekk ji dégg nga ba tey lettre jiim ñu masko ko bamma muy maska lonk bi waaw bi mu taqalool moo ko xëcc muy juu jaa ji juu jaa ji juu lettre xaa légère xaa bi day oyof dégg nga ñu maas fatxa plus xëcc bi muy xaa ñu maas kasra lettre xaa bi yaa moo xëcc muy xii ñu maas bamma dégg nga waaw bi moo ko xëcc mu nekk xuu waaw muy xaa xii xuu xaa xii xuu lettre xaa bi moo gën a dëgër mooy xaa bi ngay bindee xaadim muy lettre xaa bi moo gën a dëgër bii parce que bii amul tomb ci kaw dafay légère xaa bi moy deuguer nga ni kha parce que tombe be tax boy done bind dimur rasul comme leen ko waxe won kha bi mokoy bind mom mo ñewat ni lettre kha bobu ñu mas ko ci souf kasra ya bi moko xecc muy khi comme par exemple akhika sa mbok akhika khi ñu masat ko damma mom lettre kha lonk bobu waaw bi moko xecc muy xuu donc muy xaa xii xuu xaa xii xuu dégg nga lettre dal alif bi moo ko xëcc da alif bi ñëw muy daa di yaa bi moo ñëw moo ko xëcc si muy dii du waaw bee ko xëcc dégg nga muy duu daa dii duu daa dii duu dégg nga lettre moo nekk noonu fatxa moo ko maas muy za alif bi daf ko xëcc muy za za ñu maas ko kasra yaa bi xëcc ko muy zi zi ñu maas ko damma waaw bi xëcc ko muy zu za zi zu za zi zu foofu la ñu donc léegi ñaar yi moo ci yokk muy lettre ra lettre ra bu commencé fatha muy ra alif bi moo ñëw pour xëcc si ko muy ra encore lettre ra ñëwaat ñu mas ko ci suuf muy maska kasra yaa bi dafa ko xëcc si muy rii muy rii moo ñëwaat di ru waaw bi xëcc ko muy ruu ra ri ru ra ri ru lettre zëy zëyin buñ ko maasee fatha alif xëcc muy zë dégg nga buñ ko maasee kasra yaa xëcc ko muy zi ñu maas ko bamma lonk waaw xëcc si ko muy zuu moom ba tey aussi waxoon naa ne bokkul ak bii parce que bii cosaanam moo nekkoon euh, zaalun zaalun buñ ko bindee moom rek sans masque bi ñëw sans alif bi koy xëcc ñëw moom rek mooy zaalun bu dee bii mooy zaayun bii lun bii yun buñ ko daggee yaa ngi doon wax fii zàll dall yaa ngi wax dall bii nga ni zàll buñ ko daggee bii boo koy wax danga naan zëy bu fekkee amul maas amul xëcc moom simple nii rek ñu bind ko def tomb rek maasuñu xëccuñu zëy ngay wax zëy bu dee bii nga ni zàll kon du benn buñ ko maasee nii nag xëcc ko bi danga naan zaa mu tàlli zaa man zaa lesi gis nga man zal lazi yashfau indahu illa bi izni bu dee bii da nga naan ze day mel ni da ko sëggal tuuti parce que ze yun la woon wala nga ni zëy par exemple booy bind zëy na bu comme ni leen ko ne woon loolu mooy différence ñaari yii su ko defee mën ngeen def 88 628 17 27 comme ni ngeen ko xamee ñu ànd ak yéen rek incha allahu taala ba. Euh, ñu ñuy def signe euh, signe temps bi jeex 88 628 17 27 moy numéro bi ngeen ñu joté yéen en direct inshallah taala ci sen émission yété fi ci sen télévision LCS la chaîne sénégalaise su ngeen défé numéro bobu 88 628 17 27 ngeen jot ñu inshallah donc a i u ba bi bu ta ti tu sa si su ja ji ju ja ji ju ha hi ح حي حو خا خي خو خا خي خو دا دي دو دا دي دو زا zi zu za zi zu ra ri ru ra ri ru z zi zu z zi zu, a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu ta, ti, tu sa, si, su sa si su ja ji ju ja ji ju ha hi hu kha khi ku da di du da di du za zi zu za zi zu ra ri ru ra ri ru z zi zu z zi zou. Voilà. 88 628 17 27 incha dit taala di sous nous. Euh, maman bu baax parcelle 26 muy soxna Aïchatou Ñang fa tabarakallah euh, ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyuwaale doomam di Mouhamadou lamin Jaxate fa tabarakallahu di kontaan bu baax a baax baax a baax ci ñoom euh, ñoo yendoondoo mu ne ñu mu ngi suivre émission bi bu baax topp ko soxna Aïcha tabaarakallah ñang foofa ca parcelle unité 26 tabaarakallah Galaye Sarr moom itam ak Alioune Diallo foofa ca parcelle unité 26 ñu nuyu leen tabaarakallahu ak suñu soppee Thierno Gueye cambren ñu nuy leen bu baax a baax a baax 88 628 17 27 88 628 17 27 rek comme d'habitude incha allahu taala su ko defee mi ngoog ah. i u ba bi bu ta ti tu sa si su ja ji ju ha حي حو خا خي خو دا دي دو دا دي دو زا زي زو za, zi, zu, ra, ri, ru, ra, ri, ru, z, zi, zu, z, zi, zu, a, i, bu ta ti tu sa si su ja ji ju ha hi hu حي حو خ خي الو الو السلام عليكم عليكم السلام كوكان لا انا فانت كوكان لا man la sant ñi ah tabarakallah 88 628 17 27 88 628 17 27 incha allah léegi ñu mën a jot ci kàttan yàlla ñu jégglu soxna Fatima boobu euh, su ko defee rek ñu ngi signalé incha allahu taala ne mën nañu euh, participer fii ba 6 minutes incha allahu taala 88 628 17 27. Euh, incha allahu taala euh, mi ngoog euh, soxna Kandji xam naa yéen ñu doon sàkku pour ñu delloo si ko mi ngi noonu mooy bi leen rëccoon jeudi ba muy a i u ba bi bu ta ti tu sa si su yaakaar naa looloo rëccoon ajjuma lañ asalaamaaleykum ah, allo. soxna si. waaw ah, man a Mbaye maa ñëwaat. waaw kay bisimilah Ndiaye. waaw ah, damaa bëgg a tari. ayca bisimilah. i. u. ba. bi. bu. ta. allo ah ñu jégalu soxna madame Ndiaye boobule 88 628 17 27 88 ngi woon ci yoon wi fa tabaarakallah mi ngoog taa ti tu saa si su jaa ji ju xaa xii xuu Kha, Khi, huit 88 628 17 27 Da, di du za zi zu ra ri ru ze zi zu mingok Assalamu alaikum. Wa salaam naa def. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. maa ngi jëf ci émission bi. jërëjëf jërëjëf ku baax. vraiment booy jàng man damay tëdd sama lal di jàng rek. ndeysaan dëgg la ndeysaan. wax dëgg yàlla mosuma jàng mënuma jàng sax. dëgg la vraiment ñoo ngi rafetlu ci rafetlu lool nag. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. nga ñaanal yàlla nga yàgg ci amin ñu bokk incha allah amin amin sayyidina sallallahu alayhi wa sallam bi naka laa ak foo ñu woowee tur Awa Mbaye la Awa Mbaye yaa ngi wootee fan maa ngi wootee yi un angle six ah? ah, d'accord Médina un angle six waa Médina wax nga dëgg wax nga dëgg mbay wax nga dëgg Mbaye tabaarakallaahu ñu ngi kontaan bu baax soxna Hawa mbay Pour faire Médina rue angle 6 tabarakallah euh, yi intention bi nga télévision LCS la chaîne sénégalaise la télé passionnément ko tous les jours du lundi au vendredi en direct ngén tok ci wala ci salle yor kay ak bic di suivre pour am Euh, yal na yàlla barkeel lépp bi xormati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nuyu suñu soppe bu baax muy cheikh Mouhamadul Fadlilu Kan ak njaboot gi soxna Bintu ñoom soxna da euh, Serigne Daoud ak ñoom euh, soxna Ndey Faatu Kan ñoom ñëpp ci parcelle ñu nuy leen bu baax a baax a baax tabaarakallaa soppe yooyu ak ñiy suivre émission bi yëpp di ci jàngee tabaarakallaahu bu ko defee rek. ñu ngi signaler ni liñ ñu cërle woon ci waxtu yakarna euh, ñaari simili inshallah mo ci des ñu tuat rek kon doga a wàcc ba suba ak inshallah euh gis nga a i u ba bi bu ta ti tu sa si su ja ji ju ha hi hu kha khi khu da di du za zi zu ra ri ru z zi zu tabarakallahu kon ñu sant leen bu baax gërëm leen sant suñu cameraman Amadou Kebe tabarakallah sant euh, suñu euh, soppe bele ci réseau bi di Alassane tabarakallah ki nekkoon ci tableau bi seen mbokku daara oustaz Mor Diouf di daje incha allah subaak ak ci waxtu wi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى